أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم إخوة الإيمان في كل مكان نعيكم تحية الإسلام وهي سلام الله ورحمته وبركاته وإيران علينا عليكم سلام كم نين كو خامي كما لا يخفى عليكم نين فصل سونو كينو تي كين كي te dootu kennal ku mel ni moom borom 53 ans yi ci Makka 10 ans yi ci Madinatu a 63 ans yi ko yàlla sant lim ci liggéey lépp mu yënt yàlla Muhammad ñi ngi nuyu kilifa diine yi ak kilifa aada yi nuyu bu baax sëriñ Babacar Sy Mansour ak euh, waa kër maam Cheikh Sidi Hadji Malick yëpp. ziar leen nuyu leen sargal leen ñaanal leen waaye nuyu sëriñ Mountakha Mbacké moom Cheikh Mouhamadil Basir ak waa kër maam Cheikh Amadou Bamba Khadim Rasoul yëpp waaye nuyu sëriñ Muniru Njegen fii ci Thiès waaye nuyu sunu waa kër maam ya ca cene ba sëriñ Abdourahim Seck ak xalifa ba waaye nuyu bu baax itam ki nga xamante ne si mooy sëriñ Bekay Kunta ak waa ahlu waa Ndiassane yëpp waaye nuyu Baye Sidi Makhtar Kunta ci Thiès nuyu waa Ndiassane nuyu waa cene ba sëriñ Abdourahim nuyu ko bu baax ziar ko waaye nuyu waa Laayeen waa kër maam Seydina Limaamu nuyu xalifa ba waaye jaarale ko seen ambassadeur muy sëriñ Assane Gueye Laay Laay Maxtaar ziar ko nuyu Adja Marème Diop Silla ziar ko waaye nuyu waa Ñaseen yëpp nuyu seen xalifa ba ak waa kër ga di leen ziar ñëw ba Thiès nuyu Serigne Saliou Touré mi fi toogal maam Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul waaye nuyu bay Khalifa Kebe ziar ko nuyu Serigne Abdoulaye Diop doomu bay Omar Diop di sunu mag di sunu lépp ak Alhaji Idrissa Gaye ziar nañu képp koo xam ne yaa nga fa waaye nuyu waa télé bi yépp nag ziar leen ci DG Alaaji dumb Doumbouya kilifa gi ziar bu baax soxna aadama suñu jarbaat ndokkeel ko ñaanal ko suñu borom àggale ay mébétam waaye nuyu taalibe borom ndaam Serigne Khadim Lo Gaydal borom penc ma ca baax Baxdaat moom it ñu ziar ko nuyu ko ndokkeel ko waaye ziar képp koo xam ne yaa ngi seetaan gàddaayu na bi muy émission bi nga xam ne seen mbokk seen xarit sëñ Daam Saaxo moo leen koy présenté tey nag ñu am ay gan yoo xam ne yu am solo la muy alxaaji Ousseynou Diop bu Baye Omar Diop nekk borom xam nekk nit ku baax waaye nuyu bu sëñ Abdou Lahad Ndiaye di doomu Baye Ndiasse Ndiaye di woykatu yonent bi di tàggkatu rasulullahi waaye jaarale ko ci xasida maam Cheikh Amadou Bamba ak alaaji Pape Samba Ngom nekk ab jàngkat dëkk fii ci cees Pape Samba Ngom mu sëriñ man Cheikh man Ndumbe moom it ñu nuyu ko ziar ko ndokkeel ko ñaanal ko muy tàggkatu yonent bi kon nag incha allahu ñu dugg ci waxtaan wi bu soobee sunu borom waaye laataa loolu ñu jox alaaji Ousseynou bu ko defee mu nuyoo incha allah ñu dellu si والصلاة والسلام على جحجح المبجل سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بأسن إلى المدين موكي جاكر لغنون صفنا سمونيو تيكي دانيل كاد دوليغي يوراتكو واخ دو نياري جيم بن جيم لا موي لونو گم نك كيب كوم نوي نالا كوم زيارة زيارة نالا كيب كو خامتيني ياغي سيتان ايميسو بي نيغي لاي جوخ سونو لوخوي خول di ñaan suñu borom bi bërëb bi yàlla yàlla yëkkati ko ba ñëpp dégg ko ci daraja rasulullahi alaaj daam nuyu nañ la ziyaara nañ la nuyu ñi nga xam ne ñoom laa bokkal jataay wi Cheikh Abdoul Ahad Ndiaye sama soppe sama xarit nuyu alaaji Pape Samba ngoom ñaanal ko yàlla yàlla yàlla def tawfiq wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu jërëjëf alaaji Ousseynou nuyoo bi am na solo jotale na matale na kon ñu jox sëriñ Abdoul Ahad Ndiaye moom itam mu nuyoo incha allah baax di la jox sa wàccuwaay di am mbégte ci jotaay bi xam naa ne sama nuyoo dama koy dëxëñ ci nuyoo sama soppe sama xarit mm-hmm. sa Ousseynou Diop la mm-hmm. tabaarakallah di ñaanal sunu baay alaaji Njaase mu yàgg tuuti amiin yaa rabbal aalamiin jërëjëf eh, alaaji Abdoul Ahad ñu ziar la ndokkeel la kon ñu jox sëriñ Pape Samba Ngom moom itam bu ko defee mu nuyoo ñu door a dugg ci waxtaan bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu alhaaji daam ñu ngi lay ziar bu baax di ziar bu baax DG Pape Doumbouya ak mboolem ñu mu ànd bi yëpp di ziar bu baax alxaaji Ousseynou Diop xam-xam bu rafet bi. Mm-hmm. sëñ Abdoulaye Ndiaye macha allah moo tagg yonent bi lool sallallahu alayhi wa sallam ngi koy ziar bu baax di ziar sëñ Cheikhouna Mbacke di ko ñaanal gudd fan bu ànd ak wér yëpp dina ngeen jëf. jërëjëf euh, ki nga xamante ni si mooy alaaji Pape Samba Ngom. Euh, alaaji Ousseynou Diop sëriñ Abdou Lahat nu nuyuwaat leen ziar leen. sala alaaji Ousseynou dafa am bis bu ñuy waajal. Ah. le 10 avril. ñu jagleel ko nag kenn ki nga xam ne mooy yonent bi sallallahu alayhi waaye Prestige nekk tele bi nga xam ne bërki démb rek mm. ci gàmm gi nga xam ne mooy gàmmu promenade de Thiès muy guddi na bi Euh, Cheikh Alaaji Pape Doumbia jëf fi lu am solo loo xamante ne si ñëpp waroon nañ ko jëf waaye moom la ko yàlla jagleen mu jël bis bi nga xam ne mooy guddi na bi fële ca promenade de Thiès wax def ko direct euh, déplacer ay moyens jël effectif bi indi leen ngir nu wone ki nga xamante ne si mooy yorent bi ñuy waajal nag bis bi nga xam ne mooy fële ca Parcelles Assainies muy le 10 avril incha allahu alaaji Ousseynou buñ la doon laaj kan mooy yonti yàlla Muhammad waaye laataa loolu dañuy jox sëriñ Abdou Lahad bu ko defee mu ubbi xasida bu ko defee ñu door a dugg ci waxtaan insha allah sidi xalxe nge sang leen xool ci Muhammadu sang ba ca madina si di xalxe nge sang bee feeñ kaay leen xool ci Muhammadu imaamu kullu nu jabaare yi seydul kawnayni محمد رسول الله gën ñi gën ñi gën woone gën ñi bëgg a ñëw sayduna muhammad muhammad rasulullahi borom faaxa nabina fi xalqin wa fi xulqin wala mi daanoo fi ilmin wala karame kooke mooy muhammad rasulullahi seyduna muhammad lépp luy leer ak fa muy leere ak la koy leeral mu ngi leer ci leeru seyduna muhammad min nuurihi kullu nuurin saatun bi sana nuuru nujuumun wa nuuru samsu wal xamar muhammadu rasulullahi kooke mooy borom la diisee sang ba ca madina ah mu mel ni jotaay bi dañuy ibbee lool rek xam naa ne oustaz ku lu wax suñ moom maa ngi ñoo koy doxalante incha allahu rabbi buñ ci àggee bu soobee yàlla incha allahu rabbi sëriñ nga ubbee moom ci yonent bi neex na lool ndax luy leer mbaa kuy leer mbaa lu leer ba pare mbaa lu bëgg a leer ñu ngi koy leerale ci leeru yonent yàlla Muhammad kon nag ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm euh, ci am daax yu am solo yi nga xam ne ubbee nga ko waaye yaa ngi daaneele nag ci le 10 avril kon xam naa nag euh, ku bëgg a gis suite bi incha allahu boo ñëwee le 10 euh, avril danañ danañ ko continuer mhm. kon bis boo xamante mhm. am mhm. kii da nga koo wooteel kuy julli. Mhm. ba tax na maa ngi ci woo sama maman Aïda Cissé nekk ca États-Unis mhm, ndeysaan di ko wax mu waaj le 10 avril. ndax mhm. bisub Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam daara. incha kon euh, sëñ Abdou Lahad ñu sant la jox alaaji Pape Samba Ngom rek moom itam bu ko defee mu ubbi ñu jàkkaarloog oustaz nag dugg ci waxtaan wi incha allah. kitaabun azizun وجعل ربي لخير من بيا تعلق أسن يلاقي الأقبياء ويا ربي لخير من بيا تعلق أسن يلاقي الأقبياء أكرمهم ربي أنهم ينجون من نقم باخ خما نفعهم الدنيا وأخرى نافح بما به تاتيهم المنافع نجاو الباخي من النيران دنيا وأخرى من الخسران هرب كل من له سقاوى إلى السواي وليتلاوى وجعل بيعلم بالانتهاء بعد الممات كل خير يسعى لكل من بها تعرق نجا من كرر الدنيا وفي يوم النجاة كل مريد بيروس يصعد وإنه من العذاب بعد تعبز تعلق بي يسول بجاي من إليه وادي ونسول أكرم ربي كل من تعلق بيا وكل أبن أطلقا بيا تعلق الذين أسلموا من جنعة دون من لم يسلموا ألا يمن الله في بإزمة من درر إدلال زاد سياتين إلى يترى بذكره وللمنى يسردى يقول القرآن خودا لم يكن لخير الدار وقد لم يكن زنت صلاة وسلاما وسنا لمن به دري لخير ينسنا jërë ngeen jëf bu ko defee rek ñu bàyyi xel rek bis boobu di sunu bis bis Seydina Muhammad mboolem soppeek ñëpp rek ñu leen ci woo insha allahu taala le 10 avril incha allah ca rond-point Parcelles. jërëjëf amiin yaa rabbal alamin euh, jërëjëf alaaji par Samba Ngom ñu nuyu ko ziar ko ci xaside yi waaye comme sëñ ab laxaat niñ ko waxee sànq alaaji Ousseynou Diop oustaz bu ko defee dégg nga fi ñu jaar dugg fi bu ko defee ki ñu organiser tàntal ko te tàntaluñ keneen ku dul moom mu yont yàlla Muhammad moom nag la yàlla dikk ne ko ñaanal ba pare sant ko ko waaye dik ko nag ne ko bu ëllëgee dinaa nangu ndax cent 124 mille 313 rasulaay moo ca gën bu ëllëgee itam bu dekkee mooy régler problème yi bu dekkeegul koo dekki tiit kooku nag la ñu bëgg a tàntal incha allah le diis ñu ñëw fi nag tey ngir waxtaane kooku waaye incha allah suite bi ma ngay feeñe ca parcelle ci kàttanu yàlla yàlla nañu fa yàlla yóbbu kon euh, oustaz Ousseynou bu ñu la doon laaj kan mooy yontu yàlla Muhammad lan nga ñuy wax Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam falxal moom dinaay faral di wax lu bëri ne tabaxu miir bu dul yegg na tabaxu miir bu dul yegg nag doo rey sa bopp da ngay laal tuuti rek xam ne da ngay gontaat boo gontee laala tuuti xam ne da ngay xëyaat ci ngay fanaan ci ngay yeewu ci ngay gont defe naa nag kooku El Hadj Pape Samba neexul jeexal laalal rek yonentu boobu nag bi yàlla bëggee amal àdduna daf ko jaare ci amuk Seyduna Muhammad àdduna nag suñ koy misaal ci univers bi ci kawnu bi ñi jàng science géographie d'accord nañ ne mu ngi mel ni nga jël portable bi sànni ko ci digg plateau bi fii li mu occupé loolay àdduna li ci des mooy univers mu ne loolu lépp nag ki tax mu am kenn la mooy ki ngeen fi doon joobe muy Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kooku nag la laaj daa kul wasloo ibtada bi yenent wax jii mu wax mhm. ku ñuy wax Muhammadul Bushayri moo liggéey Hamziya mhm. kul wasloo ibtada bi Muhammadul Bushayri Hamziya dafa siiw ak burdu waaye moom moo way daaliya moo way umu naare mhm. kul wasiloo yittada bi yenent bi moo tax Seydina Muhammad du liir leer la kul wasiloo yittada bi Muhammad Buseyri nee na billaahi bépp melokaan woo gis Muhammad màggee ko daf ko ndawe isawa baax baaru fadlun minum ti daaw eh Moustapha ni mu màggee noonu la ndawee ni mu ndawee noonu la màggee sayidun mu ne kooku sang la di xoo nee kooku bu daan reetaan dinaa leen wax nan la daan reetaanee tabasumoota Mouhamadou Bouchir mu ngi estimer gaa yi ne Moustapha daawul xàqatay da daan muuñ waaye wal masu huway naa. nee na wal masu kooku bu daan dox daawul waaxu day dox nànk-nànk. wanaw moo ixfaaw. ee eh, ki allah daam wooteel kooku bu daan nelaw da daan gëmm waaye bët yi mooy gis. sang ba ca Madina rahmatul kullaa. ah kooku léppam kullaha rahmatul léppam yërmande la. waxas mun. kon ku am ku ñëw foofu di nga am dogu. waasmun billaahi ku ñëw foofu di nga am ñoom wawaqaarun ku ñëw foofu di nga am wéegu ci yàlla ndax Moustapha moo lay garan wa ismatun xayaaw yenent yàlla Muhammad eh, képp ku ñëw foofu te bis boobu di le 10 avril di nga am li nga xam ne mooy ñëw ak kersa eh, taxul bashar eh, waxaatal loolu te yi dégg wax Muhammad rasulullah laa taxul bashar nee na laa taxul ba saaw nee nattu daawul fecc buum mu ñoom. minun wala sabrin. nee na billaahi kii muy way nee na képp ko am nattu sa buum muñ day dagg nee na Moustapha buum muñam nattu du ko dagg. wala tasaxifoo saraaw. mboolem lu ñaaw dara mënu koo gis ba mu tiital ko du obstacle. Muhammad rasulullah. nee na Muhammad mim xaa mim del mooy turam. محمد رسول الله تتكو احمد لو نح ياتي من بعد اسمه احمد محمد رسول الله مو موي دوم عبد الجك امينه دك فين خامي موي مكه المكرمه سجر سونو غير غير غير ني مدينه سانغ با تي مدينه محمد رسول الله موي سوبي مام شيخ حاج مالك ياكار شيخ احمد بامبا مام شيخ Cheikh Ahmada Tidiane mais maamu Cheikh na Cheikh Saad borom amaam. eh Cheikh na Cheikh Saad bi nee na. bi nuurihi. adaa ma fil kawni. wal uxtiyal baadu si al mawni. d'accord yeneen ay maam. d'accord bi nuurihi. Cheikh na sax saat bu neen ca leeram ga ca la yàlla amalee kawnu gi ma doon wax adaaw ma fi l kawni waluxtiyalu baadu siran aw nii lépp loo gis mu wàcc fi rek bañ mën koo joxoñ mu ngi amee ci barke Sayyiduna Muhammad Cheikh Saadu la bi nee na d'accord wallahi ma fi l wa samaayi Cheikh na sax saat bu ne amul dara lu ñëw ci suuf si wala asamaan Kufaan li Ahmadan min al-ashiyaay. Kufaan kuñ mën a dendale doomu Abdel ak Amina muy Seydina Mohamed. borom la 10 avril Serigne Babacar Seye Maodo. Sidi Fagay dem ba ma ca Jawaar. Eh, دو سرين بابا كارميني وان بوما رسول وان سما باي كما واتي واني كاربي مويجي لا سرين بابا كارميني وان خنا خمولن ما وطو سما باي سيخ ما يونا تاريخ بي سسراج مالي نينا وإنه إس أراد الله نسطنا أبانا من نوري نور نبي العالمين موضوع نينا مام سياسي الحاجة الحاج مالك سيدي فاغي دم ما جوار نانا وانه اذ اراد الله نسعتنا وانه اذ اراد الله نسعتنا نانا بني يلا بغي بند bëgg a implanté àdduna dafa jaaree ci Seydina Muhammad jël leeram abaana min nuurihi nuurun nabil alami dafa rocce ci leeram moom yàlla def ci leeru Moustapha pour amal àdduna muhammadu rasulullahi d'accord mam maw dayamul fel ne na uh-huh. wa ma daa xattu ilaa kaana dawatu allahu akbar mujaabatan duuna tardidin

kenn moo ko yeesalaat muy maam El Hadj Malick. wa maa daaxatu illa kaana dawatu asbaha maa u mahabbatina li rasul sallallahu alayhi wa sallam wa kunna natasaalu an allazi yatina bi maa in maayin zahru xaaji Malick. Eh, wa maa kaana daanu illa kaana dawatu maam El Hadj Malick nee na ki El Hadj daam wooteel. musul ñaan. wala mu bëgg a ñaan wala mu ñaan ba pare nee na mujaabatan ñaan gi day nangu duuna tardi di amu sikki sàkk wala atami yàlla du ko rejeté wa man baysaana hmm. waaw allah ji maal yow yaa ne bëgg ñaan wala mu ñaan ba pare bu mu ci def day nangu andil preuve allah ji maay joxe preuve wa man baysaana allah billaahi am na benn teen bu ñu doon tuddee maa u baysaan waa baysaan liñ ci jublu mooy zoamaawu xuraysh Moustapha da leen a romb daal ne eh yow bu dee yàlla yónni dañoo bëgg suñu teen wi nga ñaanal ñu mu am ndox mu ne leen teen bi nan la tudd maam Alaaji maa ngi nee na maa ngi vérifié nee na këram Moustapha ñaanul tifliwu dafa changé tur bi rek ndox mi neex isama nabiyu bihi بيسان موسى زتور مونا نعمان نعمان عزبون فرات تيب التهم الله جي باغي نانا ماغي توك اي نوما دي جاك ساتيون مودو ني ماغي لنگري مصطفى نيانو تفلو دا فا سان دي تور بريك نوخ مي نيه نعمان عزبون فرات تيب التهم الله جي مالك بو تيغي خليمام إيه، مبوكل مم بوكل مم مارم بوكل مم بوكل داري Uh-huh. xaadim mbégum jaam ñi nee na seexul xadim nee na uh-huh. seexul xadim nee na uh-huh. bàyyi fàllu Musa ak Basiro Abdalaat ak Serigne Saliou maami muslimatu Mbàkke maami Seex Mbàkke gaynde Fatma Serigne Touba nee na Muhammadun zikruhu maam Serigne Touba Xaadimu Rasuul nee na dafa am nag ñett mm-hmm. dafa am zikru am zakir am mazkur محمد ذكره موتاخ وقت بعارف بالله بنانا كوي تود يالا نانا جامبي دارا تريو كو ييغ يالا لي موتاخ انزي ورنا فرات العبد لا يمنعه من الوصول الا عدم السلوك محمد ذكره انزي ومغفرات ولا يمنعه من السلوك الا عدم إرادتي محمد ذكره أنزي ومفرات ولا يمنعه من الإرادة إلا عدم تصديقه محمد ذكره أنزي ومفرات ولا يمنعه من التصديق إلا عدم توفيقه محمد ذكره أنجي ومغراتا من فمن وجد التوفيق وجد التصديق محمد ذكره أنجي ومغراتا فمن وجد التصديق وجد الإرادة والنور خلبي وأعداء وراء بالله من فمن وجد الإرادة وجد السلوك محمد ذكره faman wajada suluka nag wajada wusula nag foofu wax dëgg yàlla déglu ma tënk la li aarif billahi bi wax nee na jaam bi dara terewu koo yegg ci yàlla loolu ñàkk sóobu dara terewu koo sóobu loolu ñàkk bëgg dara terewu koo bëgg loolu ñàkk dëggu dara terewu koo dëggu loolu ñàkk tawféex mu ne ku am tawféex di nga dëggu te ku dëggu di nga bëgg te ku bëgg di nga sóobu te ku sóobu yegg loolu tax Moustapha yegg mu ne billahi Moustapha moom mooy suñu mbégte Moustapha moom moo ñu génn mboolem tiis bu ñu nekk Muhammadu zikru انذروا مرة نانا مصطفى تدكو مو ني بكلو من سيرن توبا خاج رسول نور قلب الواد آه، آه. وراحات واي دغلو باي سيرن فالو مباكي نانا بالله مصطفى تدكو موي سونو لير نخ موي دوندو سونو خول محمد ذكر وصي ولا نانا او نانا انسي صح مومي ريت لي با بالي هو رجائي موي سما ياكار سيرين توبا خايمنا سونين تي نياري كيري ادنا الله خير كين لا في ياكار مومي سوفي موي سيدنا محمد اه سيرين توبا نانا بو ني واخ بو نخون ني سورما اك تخوا يوم القيامه كين لا في ياكار موي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المصطفى اخرج المنان يوسف من ايه ايه دقل لي مبكي دقلن لي ريسبكتاتوري بالمصطفى اخرج المنان eh ku ne fa nga toog rek dama lay ñaan nga fitta su benn yoon nga am kër ci aljana billaahi bil mustafa akhrajal manana lii ngeen di gis nag du dara avant première rek ci bisu alaaj daam saaxu bi la 10 avril bil mustafa akhrajal manana te bis boobu kat ñoo ngi cay xaar famille saaxo mais ñu ngi fay xaar alaaj ma saaxo بالمصطفى اخرج fay xaari allah jibran badian bu mbax mi nga xam mo wara taxaw bis ba waxaatal la nga waxoon rek bay bu njëkk mustafa allahu akbar nee na ci ca la yàlla min kan? eh yonti yàlla Yusuf ca biir ga ca biir teen wa la tax mu génn fa ci barke Moustapha la allahu akbar eh mboolem koo gis mu am sauvetage yàlla mu ngi ko ko defalee Serigne Touba ci barke Moustapha barakallah kon na mbokk yi la ma waxoon sànq mooy ñëwaat tabaxu miir bu dul yegg la dëgg la tabaxu miir bu dul yegg bu rey sa bopp laala rek wàññeeku kon nag yonantu boobu nag alaaj daam mm-hmm. nañu dollee xamaat valeur te bañ di ko baana baana. mbokk yi. dama ne yonent bi. ñi bañ di ko baana baana nag. ndeysaan yow daal pour nga tudd yonent bi nanga dégg rek ñu wax Muhammad nga door wax salaay salaam. ma nettali la loo xam ni mës naa la ko nettali. nga dégg. muy ibnu taymiya waxal dara ma netal lay histoire bobu ma daanale foofu laxa saada man yati kama saada mamada ibnu taymiya mo liggéey tere al azkar laxa saada man yati kama saada mamada nokki jakar la ñun ma ngi ñaan ku yebu mustafa ba la ngay dugg bàmmel laxa saada man yaati kama saada mamada fréquentel Moustapha na mooy allaaj daam wóola ci bis bi nga ñëw ca laxat saada moom mooy nga yor sa kurus toog di def salaatu ala nabi laxat saada Ibnu Taymiya dafa tëdd guddi mu gis Moustapha muy akolaat laxat saada man jamonoom ñépp mu leen di akolaat laxasaada mariyaati dama dama mada ku mu yegsi rek mu jox la loxo akalaat mu yegsi ci ibnu taymiya zaadama ibnu taymiya di séentu akalaan Moustapha jox ko loxo yem ca la xasaada ci gàttal mu ngi bëgg guddi waaye nag Moustapha ibnu taymiya ne waa moo tax akalaatoo ma la xasaada tontu ko ibnu taymiya yeewu très bonne heure mu dem ci sëriñam la xasaada sëriñam mu ne ko li la dal mosoon na maa dal ndax Moustapha li tax mu fréquenté wu la mooy yow da nga dul bëri looy julli ci moom. la xasaada man yaati kama ma ma daa. kon nag ku yabu deel bëgg Moustapha di ko julli boo ko defee mu fréquenté. tax la 10 avril. ca la ngay waxee. la ñuy jullee la. ndax la 10 avril. ca la lépp yi leere. Ah, d'accord saaxo saaxo be wootel ah, yeneen be ah, le 10 avril radu mbaa mutaballijal wajhi hatta lam ta'ib siblatun wa lam tazid siblatun قصير في eh, eh. eh, moom day xam naa ne ala daw na waaye nag mar woo xam ne day yokk mar loo ci mar doyut te ki ñu doon waxtaanee géej la du doy mm-hmm. ndax wax naa ci commencement bi ne fu fu taal tàkke moo ko taal ki nga xamante ni si bi ko yàlla tànnee tànnatul kenn bi ko yàlla yónnee yónneetul kenn bi ko yàlla amee amatul kenn bi ko yàlla amee soxlaatul kenn kooku nag mooy bàyyi Fatima ak Roqee bàyyi Zeynab ak Umu Kalsum waaye tey bu ngeen dégloo ñaar ñi ko séq ñett ñi ko séq liñ ci doon wax li gaa yi ñànkatak ak li muy ñeex yaakaar naa ne nag ku bëgg a gis fa muy àggee insha allahu yaakaar naa ne boo ñëwee le 10 avril ci kàttanu yàlla da nga xam kan mooy yonent yàlla Muhammad ndax ñun bis bi yonent bi rek lañ ko tàntal euh, yaakaar naa ne yonent bi nag tàntal ko mm-hmm. ci waa kër alaaj Ibrahima Sakho mm-hmm. war na lool du tey lu yàgg la di gërëm ñëpp nag ñi nga xam ne ñi ngi doon seetaan émission bi kon xam naa ne ñu daaneele foofu incha allah ndax li ñu amoon ci waxtu jeex na mm-hmm. waaye nag yaakaar naa ne émission tey bi moom dafa gën a ala daw ñu ko seeq a waaye di gërëm bu baaxit nag ñi nga xam ne mooy waa tele bi euh, ki yoroon caméra bi muy sunu jarbaat soxna aadama ak ki nga xam xamanteni ni si taalibe borom ndam la muy gaydal ma ca ndam muy ki nga xamanteni ni si wax deug yàlla gëm ak wolu serigne khadim lo gaydal la ko def te muy nit ku bax wax deug yàlla momit ñuy adama ñu sant ko bu bax gërëm ko ndokkel ko ñaanal ko sunu borom doli len katan waye gërëm bu bax DG Alaaji Pape Doumbouya ñaanal ko sunu borom projet yal na yàlla agalé ko le 10 avril bërki démb ñëw nañ fi waxtaan ci ak mom wax deug yàlla mu def ci ay taxaway yu reuy jël ci itam ay engagement yo xamanteni si lépp mi ngi koy def kon momit ñu sant ko bax gërëm ko gërëm itam ki nga xam ne mooy xaj daawda ak ñoom Modou Aïssa mais yow dina ñaan rek waaw yow loolu la waay defal mhm. dafa dugal rek bor bu mën ta fay mhm. dëgg dëgg alaaj daam taxaw nga nit ñi mhm. fonk nga jaan ñi tànxam loo dara nit te nit kenn du ko yenu dinaa koy faral di wax ne kaay leen xool kii mooy sama nit na am bés nga taxaw na am tiis nga ma sow mhm. mhm. loolu lay doyee ni te yow ku la fay sa bor mhm. dëgg-dëgg doo mel ñu ngi lay ñaanal sant ñëpp di ñaanal képp ko yaa ngi toppoon bi di jox ñëpp rendez-vous le 10 avril nga waxoo euh, léegi sànq damaa tudd sama yaay joo xamante ni dama am yéene mu am lante moom incha allah muy mama Aïda Cissé di soxna soo xamante ni fu mu toll mu ngi jël alalam di def ci daara di soxna su am jom yàlla dogal mu créé groupe soppe Seydina Mohamed bi tey jii li naan daa ala man mii leen jël ci groupe bi tey pour ma tàggal leen Seydina Mohamed waaw muy tey la première di ci nuyu ràqam soxna Adama Cissé ak mbooleem ku ne ci groupe bi mamaa de Cissé yàlla na yàlla guddal fanam la dii sa ngoog sa bi sa maa ngi lay ñaan suñu borom defal la toofe ak tey amiin yaa rabbal ko waxee rek wax dëgg yàlla ñëpp la taxaw maanaam ku ñëw waaye moom lëblese wu lëblese yàlla taxawu ko te jàppandal lépp rek amiin te mu sedd guy ànd ak xéewal ak ndam ak barke ci mm-hmm. barke bi maam alaaji Eliman Saaxo mm-hmm. barke boo juróom mm-hmm. jërëjëf alaaji Pape Samba kon nag ñu santaan ñëpp gërëm ñëpp waaye Serigne Assane Gueye laay di ambassadeur kër maam Seydina Limaamu di sunu lépp waaye Serigne Habib Saaxo di xalifab maam Eliman di xalifab alaaji Ibrahima Saaxo ak kilifa diine yi ci dëkk bi kilifa aada yëpp nag ñu ngi leen di woo ci bis boobu ña ngi koy defee fële ca rond-point Parcelles insha allah bu ñu xëyee dinañu jàng ay kaamili alquran daara yépp dinañ fa daje bu ko defee nag bu ñu demee ba 3 heures ñu xewlu bu ñu paree 4 heures ci kattanu sunu borom Serigne Assane génn si ak mbooloo mi ànd koog ñoom Serigne Cheikh Sakho ak ñoom Serigne Babacar Sakho incha allahu nag bu ñu demee ba julli timis ba pare Iran Ndaw muy Ibrahima Badiane ñëw ci tànt bi ñu commencé waxtaan wi ñi ngi jox rendez-vous ñëpp nag incha allah le avril di sant Baye si nag bu baax a baax di ko gërëm yi nga xamante baax mag mu baax la mag mu joxe cër la ñun ñi fi nekk yëpp ay doomam lañu waaye wax dëgg yàlla mu yiir ñu kon Baye Ousseynou ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm di wax daal rendez-vous bi incha allah le 10 avril ca rond-point Parcelles incha allah wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. waa kër Badiane Yacine yi ñu nuyu leen soxna Sadio Dieng ak waa kër ki ne Sakho ya ca euh, Somm ak soxna Ndeye Penda Ndiégane sunu waa kër yi ci jaxaw yëpp ñoom soxna Maye ñu nuyu leen ak ñi daan seetaan émission gàddaayu nabi yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen si siyaar wasalaamualeykum wa rahmatulahi rahmatullahi taala wa barakaatu suñu waa kër yi ca parcelle ñu nuyu leen ñoom soxna Ndeye Mate ñoom soxna Jaar yëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa